Sénéinfo International. Sénéinfo International bonjour bienvenue dalee nag jàmm si la gën a fës si xibaar yi euh, vendredi 17 novembre 2023 dañ koy commencé rek euh, par le Sud Quotidien le journal Sud Quotidien bi nga xamante ne ñëwaat na euh, si verdict bi nga xamante ne pour de la justice de la CEDEAO war na ko joxe tey ak Cour suprême du Dakar sur les affaires Ousmane Sonko donc dans sa une mu ne le Sénégal retient son souffle. Euh, daanaka tey Sénégal ñëpp a tiit ñëpp a jaaxle ndax euh, verdict bi nga xam ne war nañ ko joxe euh, si cas procès Ousmane Sonko da ba xam ndax nan lay bokk si élection yi wala du si bokk donc tey lañ koy xam parce que tey lañu la cour de justice de la CEDEAO à Abuja di jël décision ak cour de la cour suprême du Sénégal tey la ñuy xam ndax Sonko day bokk si élection yi ou pas donc si journal bi rek ñu ñëwaat encore si ay jeunes yoo xamante ne dañoo regroupé aussi ay syndicats syndicats de la société civile ah des leaders politiques ah ñëpp donc dañoo def benn collectif boo xam dañoo def benn plaidoyer pour des élections apaisées donc jeunes yi nee nañ jàmm ñu bëgg jàmm la woote en Sénégal boo xamante ne élections yi dañuy dañuy nekk des élections apaisées donc loolu la journal bi xëy fësal si ëttam euh, bu njëkk ñu ñëw aussi euh, Walf quotidien Walf quotidien euh, dans son dans dans sa une nee na un vendredi de feu manifestation de l'opposition Donc, le leader du PASTEF appelle à la résistance. Donc, Ousmane Sonko, la depuis sa cellule de prison, euh, il appelle à la, à la manifestation et à la résistance. Ah, il donc donc il appelle donc à la résistance et à la manifestation. donc ñu ñëwaat ci journal euh, Le Soleil Le Soleil ñëwaat na rek encore ci tournée économique bi nga xamante ne moom Macky Sall dugal ci euh, région du Sénégal donc après étape Kédougou bi Kaolack ak Kaffrine. donc euh, de war a dem euh, Fatick foofu lay jeexalee tournée am bi mais à Kaffrine investir na foofu 700 euh, milliards de francs CFA donc suñu journal bi di titré 700 milliards de francs CFA pour Kaffrine dans un programme d' prioritaire pour 2024 2026. la tribune la tribune bi nga xamante ne moom il s'interroge ah, le sur les investissements de Macky Sall nee na Macky Sall fait ses adieux avec milliards et promesses incertaines donc promesses yi nga xam ne Macky Sall def na ko au niveau au niveau de toutes les dans le cadre de sa tournée économique donc journal bi mu ngi posé est ce est ce que dina dina ko dina dina dina dina ko am dinañ ko def ou pas donc journal bi daal vraiment ñëwaat na ci euh, question boobu di si di si posé wu par rapport ak euh, investissement yooyu nga xam ne Macky Sall diggé na ko di ko Sénégalais yi di ko waa région yooyu euh, voilà luy wéyal seen développement. ñu jàll ñu jàll si euh, beneen journal muy Libération moom ñëwaat na si affaire oustaz Omar Sall donc nee na le dossier en instruction dossier bi mu ngi nekk en instruction après un retour au parquet le prêcheur édifié sur son sort ce vendredi donc tey la ñuy xam euh, ndax. Euh, oustaz Omar Sall dafay da koy tëj wala dañ koy bàyyi donc tey lay leer lay leer si askan wi si bopp nit ñi ndax vraiment te mooy le jour de de de vérité euh, pour euh, oustaz Omar Sall. ñu des rek si journal bi Barsak ou Barsak donc am na ñaari pirogue yoo xamante ñaari gaal yoo xamante dañ leen intercepté ñi nga xamante ne waa marine nationale ñoo leen secourir parce que dañ doon dem euh, fi nga xamante ne moom mooy. Espagne doon def immigration clandestine donc heureusement marine nationale gis na leen ba intercepté leen ba sécuriser leen donc te lii lañ leen indiloon si seen si lu gën a fës si ah, xibaar yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen ñaanal kenn lu jàmm. SeneInfo International.